Gambian bi Gambian bi halisam neh naham, xam moto bu es la ko jay jay ko essence di pati ji sampa këram deka di tuki num ko nehe contrôle own family da ngi understand te man foog su development am mu ngi wara a dore ci Gambian bi si boba why because of liñ dee wax la rek holi holi ini bi dafa de nekka de ini pour tefte waye hol bi du koy nangu lolou dafa stop gambia because yenen de kay ni yaa ngi gis ay xale yu ndaw age 25 upwards the easiest thing liñ dee def rek moy ki dafa am chompi ki, am chompi ki, am chompi ñu bolé ko rek am luñ créer da pare mu ñew nekk something pi. ma jël exemple ci kena rek zuka Zuckerberg initiative la am rek yaa understand waaye am na ñu am seen xaalis ñëw si système bi yaa ngi understand ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ñoo ñoo install this Facebook waaye ñun kenn rek la ñoo dégg muy Zuckerberg because of lan mooy di CEO yaa ngi understand loolu dafa nekk understand ni ñëpp ne moom mooy di CEO waaye am na ñeneen ak ñeneen ñu nekk si système bi ñu important ñoo xam ne ñii ñoo indi seen xaalis ñii ñoo indi seen xalaat ñii ñoo install the system of a Facebook ba mu nekk alive nii waaye everybody Mark Zuckerberg laa wax because mooy liggéey yaa ngi understand so ñun Gambian bi nag soo amee xam si nga gën a soona soo amee xam si nga gën a soona because of li xew ku xamul te am duy nangu ku xamul te am duy nangu te tamit dafa fiyaa pour nga xam ne xam mooy jiite ku amul xam-xam mënut jiite soo am sa xaalis denc ko si banque bi banque bi mu ngee benefit because mu ngi liggéey di di develop banque yaa ngi understand bi mu ngee liggéey si sa xaalis interest da laa out of that lan laa collégué si interest bi pour moom waaye noot ngeen ñëw ne ñun ñooy build milling machine milling company Gambia yaa ngi understand government jox leen di am force jox leen power jox leen doole won leen ne leen Gambian thing la Gambia lañ koo liggéey Gambia lañ koo jaayee waaye nag Gambian bi moo war a promote Gambia du ma la wax fen de ma nga certain states in Africa ñu ngi ñu ngi Gambian technocrats they are working for those institutions in certain states in in West Africa and those people are very you know useful to those nations waaye lan mooy the reason pare wu ñoo ñëw Gambia because of Gambian we still believe in that mentality am am naju dañ war dee realize ne tomorrow is another day no one knows what the time will tell yaa ngi understand di nga gis ku jóg ba si kaw daanu ba si suuf yaa ngi understand waaye lu ko dee cause mooy you don't program your tomorrow yaa ngi gis so ñi fi am xaalis bari nañ bari nañ du jee ñooñu lu ma leen a wax mooy ñi am xaaliss li ma leen a wax mooy gambian bi am xaaliss li ma leen a wax mooy du moto bu ñoo dawal la kër moom dafa important ñi ba ci war a dikka moto ni daf ko war am waaye du moto bi nga dawal liggéeyal something creatal something progressive nga employ people bi off the street mu am si luñ jaaba nga gën develop in income earning you know ak infrastructural development yëpp da nga ko am because of one thing the more people bi di work through through your sa company li am is going somewhere else you only pay those people salaries and you're getting something more than what you pay them from those salaries to you Yeah, you understand so legi, Gambian bi lu ma ko advice ñi am ñi am xaalis please nañ try ñu join hands nañ try ñu join hands ñu indi ñu indi certain initiatives yoo xam ne dinañ gis ne Gambian bi dina develop because Bugoma specify in certain peoples or, or, or certain tribes or yu demee eh, noonu ñoo xam ne ñu ngi si biir dëkk bi te duñ citizen bi waaye soo bàyyee xel seen seen business bi ñoo business yëpp most of dem started from zero yaa ngi understand ba pare da gis koo xam ne daf fi ñëw one month two months three months nga door di ko gis mu ngay door di establish something small ba pare mu ñëw gën a big di citizen lan moo ko ko because foreign investment bu nekk si dëkk bi moo ëppa foreign investment bu nekk si dëkk bi moo ëppa foreigners yi ñooy import ñooy export so seen citizen si suñ fi nekkee bari di hustle is easy pour ñoom ñu support leen dan ñu support Gambian waaw because of government jëlut mesos because man I will say ne time yi Jawara lii amutoon I can say that ne time yi Jawara lii amutoon yaa ngi understand Gosta mi jawara ñun ñun ñun ñun ñun xamoon ñuy import ñun xamoon ñuy import Gambian citizens say I understand why after that change of government things new ni people be daw things are change to an other level I believe ne is high time legi put Gambian bi jël stand to represent the Gambia because dama wa wax benn wax binda benn book dama wa. ne my neighbor is complaining about the fence jumpers eating the fruits of my garden. Oh. Yeah, I understand. si suma bena bena paragraph si suma book. My neighbor is complaining about the fence jumpers eating the fruits of my garden. And that is what's happening. Legi da nga in the streets of Banjul, Fedosi. nga seetal ma ne di nga gis Fatoumata Thiam wala Awa Guèye wala Mariama Ndiaye moom laa laa wax nii soo toogee sa dëkk di gis ne liggéey bi faa daw da nga ko xeeb yaa ngi understand kon yow yow ignorant nga soo waree toog di gis liggéey bu ndaw bi nga am sa dëkk ngay koo xeeb mu óor lii si ndaw la lu nekk si lu ndaw la dooree nga xeeb ko yow ignorant nga gis nga ma def nii lii ma def nii su fekkoon ne man kee man kese kese kese rek la du ma ko def yaa ngi understand dinaa dem dinaa feel proud ne man lii waruma koo def someone else should do it yaa ngi understand te am na yoo xam ne not someone else ma koo def yow yaa ko war a defal sa booba because of si nga gën a am the enjoyment of what you doing mhm. yaa yaa ngi gis mhm. waaye the reason loolu happen mooy Gambia the pay scale pay scale bi yaa ngi understand dafa deprive ñu bëri from side new job yaa ngi understand ba pare dependency bi nga xam ne it was long going because of people bi fii families support buñ dee am from families daf dee tax bi nga xam ne soo xoolee li nga dee am from families nga calculate ko ak li nga am soo joobi jee daf la dee gën a mun a toog loo waaye loolu du yoon loolu yóbbuwul réew kanam yaa ngi understand everyone should contribute to his country because of contribution boobu noonu mooy sa tomorrow yaa ngi understand li nga xeeb nii keneen ñëw di ko def at the end moom ngaa taaw xas ne ko yow kañ nga fi ñëw ana sa bitig beeta yaa moom mu ngi doon foraatulu ndaw li ba indi ko mu mag yaa ngi suñ biir dëkk la kenn warut a benn job parce que man dama believe ne nit ki loo am rek mooy sa wërsëg dama believe ne nit loo am rek mooy sa wërsëg waaye comme ñun gambian bi xeebaate tamit am na lum ñu yóbbee yaa ngi understand ak this western mentality yaa ngi understand western mentality bi tamit is a big problem xam nga après léegi western world, bi dañ am seen stratégies ñoom it yaa understand su fekkee ne yow you got no profession it doesn't work What nga dem fa yaa ngi understand because ñoom ku am profession lañ soxla su fekkee paper work la dañ ko bërile yaa ngi understand anything looy ut ñoom dañ ko bërile yaa ngi understand waaye yow yow you got to get something loo xam So soo demee dina la dina la make useful ya ngi understand dina la make useful because fii soo ne kapenta ñu help, ko nga ne maçon ñu xeeb ko nga ne leneen leneen ñu I can see ne man si suma assessment bu ma make ñi nga xam ne ñu ngi si ñu ngi jaar si baaguy bi ñi nekkoon kapenta nekka fita nekka welda nekka plomba ñooñu they are progressing because of ham nga Europe yep weñ la Yila bi yëpp is ayoon train station yep ayon la so railway buildings ya yaa ya, gis yep is ayoon and glass so yo yooyu noonu so amul that skill or lo any other skill job boo hamne ne plumbing and yo noonu electrician and yooyu noonu amuloo ben know how about that Yo legi lan nga yaakaar dafa over important moy the biggest thing pour halay ñu jangal len métier The most important thing moy halay ñu jangal len métier Gambian bi Kompleks daf ko sonal daf ko sona Gambian bi toro be nga xamne su wone taxaw ci street of independence ay ya, Palesa, sax mu ngay xalaat ni ko romba Ya ngi understand ni la romba got something else to do te so demé ci ñom dañ la xamal sa sutura be paré mu ko te du faju ya understand be paré at the end of the day mu ne kay yabate because so ikate e sa gaming, rek ne hay diw sangam ni mu ne la teyal sa gémmiñ saa yoo dafa ñaaw understand so mece bo fi am pour janga ko trial nga janga ko pour tomorrow la pour tomorrow la parce que la benefit yow din mun naa benefit sa njaboot on understand adina bi yëpp loolu la waaye Gambian bi ma wala leena nu mu la dee sensitiser sax pour indi la si awareness yi li nga xam ne moom lañ war def lim la njeka na here, mooy 200 bi mu laa njëkkaa may yaa ngi understand so that 200 ma jël ko hey ne lii su ma si duggee lu cool yaa ngi understand dugga di gis ne boobu noonu few 200 moo aat si kawam pour mu nekk suma salaire rek ma xeeb ko yaa ngi nax sa boppa yaa ngi nax sa boppa ah, man fu mu nekk nii lu ma am pour advice youth si Banjul ak Gambian youth in particular lu ma leen bëgg a advice rek mooy nañ génnee seen xel si ne without Europe America or traveling you would not make it man no noonu dama ko take down man I believe ne nit ki su ko make is God's will Yala rek moo mun make loolu nit ki because ken hamut kañ ndax di nga eewu suba day understand yow sa tey rek nga xam Ken xamut ndax di nga eewu so lu advise you si mooy liggéey yu ndaw yi nga xam ne foli na yaa ngi jógee si biti foli na yaa ngi jógee si biti di ko liggéey di gis njëriñ ñun ñu ko koo ah ñu dé because economically do stand ya yeah, you understand té mo ni ma gis bu ma ñaan yeah, you understand ma ñaan motax ma jël job bi from council neka am naka lañ ko supervisor di supervise ni clean mbeeda bi fii initiative ñoko ñu balé ma organise xale yi as a group. ñu ñëw def ko du dara yëpp gis ne we are playing a part in Banjul the development of Banjul lii moo lii mooy di force force hand development because we nga war a doole su set amee rek lu nekk am parce nit ki mënuloo développe te setuloo because soo setul rek do wér yaa understand nit ki soo setul rek doo wér understand te set dafa bokk si wér gu yaram youth advice leen leena lo xamne gis nañ ko té mun mun sé def dara rek pour am dara nañ try ñu dugg si lo xamne soko défé rek dang sé am dara trial nga dugg si ñun ñëp xam nañ naka la family ci démé fi 95 of family ci yépp a very vulnerable ya nga understand da nga gis ño xamne ci péna peena lañ dëkka ya nga understand chop sax problème la dee nekk school bills problème la dee nekk pour rek nga progressive in education so loolu yëpp su demee ba problème te mun loo am soo xoolee sa background war ngaa mun a am foo teg sa tànka yaa ngi understand am na ñoo xam ne nag yàlla may na leen yaa ngi understand they are very fortunate danga judd fekk sa am sa yaay am nga dëkk si di eewu di am loo am lu la neex nga mel di tukki di dem fu nekka waaye gënut ki nga xam ne tukkiwut yaayam melut noonu yaa ngi understand ñun ñepp ño equal because ñun ñepp suñ taxawé be hol suñ sado ci rek dañ xam ne kola la ñu jox plaque understand nga wé nga ñuul nga brown nga lifin ñun ñepp ben sado lañ understand so so holé fofu nonu any other person rek di nga gis sa bob da bari adi end of the day ñun ñepp dañu dé dé moy di last thing understand so lu ndaw lo am mun sey produce lo xamné di nga support sa family. on those adverse you.